dikkati na mbaadu nag Ousmane Sonko dañu koo sacrifié ca dëgg-dëgg tribune yéene kaay ne ma def nañ ko nag sarax ba jébbal ko juróom benn weer ak sursu yoo xam ne man naa tax nag ba Ousmane Sonko du doon candidat moom juge Fall la nga xam ne juge Kayta dogaloon na ko benn pàcc ba daf koo teggi teg fee ne ko ñaari téeméeri millions yi mën nañ la ko daan waaye ñaari weeru kaso yi dafa daal di tuuti lool nan ca yokk yeneen ñeent muy juróom benn weeru kaso yoo xam ne Ousmane Sonko du ko tëdd waaye fi mu ne ma ngay salfaañe di bili Quotidien nan man cour d'appel bu ndakaaru daal dina yokkal Ousmane Sonko daanam mu jëm nag ci àtte ba diggam ak Mame Mbaye Niang l'observateur naan kon déet moom kay diffamation bi dañ ko ca yokkal injure muy ay saaga sud naan kon moo tax it ñaari weer la laaloon appel ba ñu yóbbu ko ba ci juróom benn weer moom Ousmane Sonko fi mu ne nag candidature am bi ci présidentielle ba doon na bëñ bu yànq l'info yéeni kay naan mbaadu Ousmane Sonko mel ni kuy gént ndax nag ba démb démb Ousmane moom mënta nekk candidat ci mim réew tànk yóbbuwul mi cassation Sonko du candidat Walf Quotidien mel ni ku naan kon kon tey dina doon candidat ndax Sonko ca cassation la jagat-jagatee jëmale président Macky Sall kub nguuram te lii l'info naan man dafa mel ni Ousmane Sonko xamoon na ko ndax Sonko ci boppam nee na Sall ngaari lam tooro burgéde mi ngi def pexe kéemtalaay kàttanam ngir duma doon candidat fas yéene it nag ñeneen ci opposant yoo xam ne moom Sall daal mooy dagal ci seen candidature suur soi naan maan loo ci manti déggi daanaka 2024 soo moytul daal Ousmane Sonko da koy séen ndax nag lépp taxaw na ngir moom Sonko mii du sukkandikoo ci article L30 bu code électoral soo amee juróom benni weeru kaso yoo xam ni tëddoo ko code électoral bi mënoo cee bokk dan la ci génnee ci diirub juróomi at génnee googee mooy tax mënoo bokk ci élection waaye nag source aane waaye nag Ousmane Sonko bés bu demee pourvoi en cassation mën naa soobuwaat ne sarax ci lang gi ndëndam gi mën a wéy ngir élection présidentielle yi tribune yéen a kaay naan en tout cas juge moom fëgg na procureur man la loi ba buñ woon juróom fukki atu kaso yu muy tëj Ousmane Sonko réew mi quotidien naan moo taxi tëddul waaye boo moytul daal moom du ca bokk direct news naan en tout cas sori na ko moom Ousmane Sonko condamné nañ ko pour injure publique ak diffamation cour ba daal di xamle ni ñaari téeméeri million lay daal di fay Mame Mbaye Niang te bu ko fayul Mame Mbaye Niang moom Ousmane Sonko ju jagat-jagatee jëli maanaam daan gii nga xam ni cour d'appel daanaat na ko ko Ousmane Sonko mën na caa tëdd kaso bu dee fayul Mame Mbaye Niang 200 millions laata ñoo yegg ca fay ba direct news daal dina ma juróom benn weer yi mën na koo teree candidat naa leen xamal leen de Ousmane Sonko la mu def démb ci àtteem beeg Mame Mbaye su ko defee dikkam ak Adji Sarr ñu defal ko mandat dama ne jagat jagatee andil juge bi critique yéen a kaay naan man mbaadu Ousmane Sonko fi mu ne dafa jaxat-jaxatee projet Pastef bi ay junniy sénégalais wekkoon seen yaakaar ci bile projet te boo moytul nag yaakaar gi daal di yanqiku ndax Ousmane Sonko fi mu ne dafa mel ku tëb daal cib xal dese na ko weneen tëb diggam ak Mame Mbaye Niang ñang cay laam-laamee dina bokk bi am déet suite booti nag nar a ñëw boo moytul doggali Ousmane Sonko Abdoulaye Diop ci Vox Populi naan déet bu leen yàkkamti ndax Ousmane Sonko mi ngeen bëgg xañ candidature am bii laa xamul fu ngeen ko teg Birame Souleye Diop naan ba fii ñuy waxee ma ne la Ousmane Sonko mën a doon candidat ci élection présidentielle 2024 ndax nag réew mi jurisprudence daf fi am te Ousmane Sonko la ko may chance mooy jurisprudence Elisabeth Gueye Mbeng xam ngeen moo nekkoon substitut bu Amady Diouf Amady Diouf nag la ko xañ mu nekk président cour d'appel te mëntaate Ousmane Sonko moo xañoon Elisabeth mii mu toogoon ca salle quotidien présidentiel ba Birame Souleye Diop naan lu nimel amoon na fi diggante Billy Mbaye ak Lansana Diabe si bi yoon jàppoon ne Lansana moomee mënul woon nekk juge et partie daal di dogo woon verdict bi loolee nga xam ne nag soxna sa amoon na ko tey jii loolee moo sàmm Ousmane Sonko ba mën doon candidat ci réew mi le point yéen kay mel ni ku naan kon Birame juum nga Ousmane Sonko ñàkk na ab droit wote ci réew mi ñàkkaatib droit samp ndënd ci réew mi yéen kay bi kon condamnation bi tax na ba Ousmane Sonko mënta bokk ci élection présidentielle yi code bi ci boppam dafa ne ku ñu daan juróom benn wër kaso yoo xam te dañ lay daar daar effacé ci code électoral bi bés le jour maan Ousmane Sonko fi ne mi ngi ci danger daal dinay rëcc ci article L29 waaye fi mu ne article L30 moo ni ko nii Ndiaga Sylla ne fi mu ne mënta nekk candidat tànk demul cassation l'enquête quotidien naan maan fi ne Ousmane Sonko mi ci miiru wis ñuy diri maître Olivier Sur naan la wóor mooy Ousmane daal du candidat le soleil yéeni kay naan en tout cas candidature am bii ma ne la ko mën a sauver mooy pourvoi en cassation Jean-Marie François Bié Jean-Marie François Biagui ma nga naan waa MFDC génn leen ci coow li l'observateur naan man demb de yëngu-yëngu amoon na diggante UCAD ak Sigi Coor waaye tam ba ca diwaanu Mbuur waaye sakkanul tribune yéene kaay naan man gannaaw faagaagal Ousmane Sonko bi Mimi Touré Déthié Fall baaba Babacar Sall waaye Bougane Gueye Dany ña ngay naqarlu bu baax a baax lii nga xam ni metti na lool te ñu teg ko Ousmane Sonko tribune yéene kaay naan man déet Barthélémy Dias kay fi mu mel ni ku ku doon avocat bu président Macky Sall yéen i bi dee média bi mel ni ku naan man Bart moo yey de ndax Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ñooyam yoon fa yallaahu Sall fi mu ne ci poñ la leen daal di téye critique yéen naan fi mu ne kay paaka leen jël daal di koy joral ci baatu Barthélémy Dias ndax nag coowal Ndiaga Diouf li dañ koy attewaat source a naan man moo taxit Barthélémy Dias doon na ab cas suspect bés bi le jour naan man fi mu ne ay tuy tuy yu metti yoo xam ne Barthélémy Dias ma ngi ko joral Ousmane Sonko naan Ousmane Sonko ci dialogue ba ca njëkk ba ma ko waxee dafa d'accordoon niki noonu Khalifa Babacar Sall Bart naan fi mu ne ña ngi may jor xeer yoo xam ne maar day taali waaye du ma mel ni mag bu naan gone bàyyi naa la ak yàlla Barthélémy Dias naan am na ñoo xam ne pare nan na ngir dox ci néew ngir yegg ca pale ba te naan ci l'observateur nangu am amnistie ma gënal nangu faat ay bakkan Bart nga naan yeewi fi mu ne mooy choisir bu ñu bëggee àndandoo bi way nañu àttee ndax lonkoolu mu neex neex koo ba mu dem ak ki mbagam Walf Quotidien mel ni ku naan man Bart daal fi mu ne génne woon na la ne woon te dënnam naan man homme lu ma neex ma wax ci lii quotidien mu fay xamal ne homme d'état ci boppam fi mu ne dafa war a na xam ba ca du loo xam rek génne ko askan wi daal di ko yëg le quotidien le quotidien naan man fi mu ne yeewi askan wi day mi ngi miir juróom benni weeru kaso ñu daan ko Ousmane Sonko di laam-laamee bokkam mi Dias dal ci kaw ña nga xam ne ànduñ ci dialogue bi moom maire de Dakar naan yeewi askan wi na àtteelu ko da na metti wala bugaan géy dani ci tribune yéen a kaay mel ni ku naan leen bu ma deret laal yéen kaay bi média bi naan ma déet bugaan géy dani kay dafa mel ni ku fekki couple buy xeex mu taxaw ca nag naan bu ma benn caayalaal am na fu mu far ma nga naan nag ña nga xam ni nee ñu dañoo ànd ak Ousmane Sonko jokkoo woon nag moo nii mag ak rak moon sax ba mel ni ñu bokk deret tey jii nag ñoo war Ousmane Sonko di jëf-jëf ju ñaaw ci ginnaawam ngir écarter ko ci élection présidentielle yi bugaan naan sabab gi leen dong la de mooy sowe système boo xam ne ay produit am lan fas yéene nag baleel président Macky Sall lalal ko basang ngir beneen mandat ci présidentielle yi bugaan naan fi mu ne loolee moo leen tax a jóg faat nañu Sonko te naan Sall daagul yoon wi sa yoona le témoin yéene kaay naan attention Ousmane Sonko dëgg la jam nañ ko de waaye yeggagul teer de Sonko loo ci mënti waxit ba tey mi ngi ci course bi Alioune Badara li maire bu Koungheul naan coow li coow li mooy kenn ñu intéressé président Macky akub candidature am Souleymane Ndiaye DG SAPCO ci tribune yéen a kaay naan moo nu ñor de fi mu ne daal présidentielle yi président Macky Sall candidature am bi moo nu ñor Ousmane Sonko loo ci mënti waxit fitna lay yee ci mi fitna googee mu bëgg na ko ñun daal candidature diggante Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko yàqu na yaxeet clash daal na cay am lekko Le Quotidien Le Quotidien naan man yeewi askan wi kay moo daal di yàqu bugaan ci vox populi mel ni ku naan bu ma deret laal waaye la leer ba leer mooy woo Ousmane Sonko ci jàmm ba mu ñëw nga ni ko tëreet daal di faat ñaaw na sunu lamb naan boobu président Macky Sall moom ma ngay wax ak mbër ya juróomi téeméeri million la jébbal promoteur yi ñetti téeméer ak fanweer ci mu jébbal ko ñu yëngu ci lamb Isabelle Samb président Macky Sall def ko chargé de mission yéeni bi naan maan waxtu wa ni wax wàllu politique